Real Madrid FC Barcelone classico samedi nara neex nara yëngu tegu ci temps ñu bëri na naan ma paasa match boobu ñu ngi xaar nga wax ci avant dinañ ci wax nag waaye ki gara gañ gañ a samedi yàlla ba rek moo ko xam et que le wax nañ ci match Bayern ak Barça barki démb avant match bi ngeen gis résultat yi de même que Real Dortmund naka noonu bi nag nañ ko def ci Barça Real comme ni ngeen ko bëggee salaam aleykum nuyu nañ leen yéen ñëpp ah, ku ci nekk seen ab tur ak seen sant mu doon match boo xam ne nii ñëpp xam nañ ne dafay neex dafay yëngu dafay tegu ci temps bu joueur buggul bëggul football sax match bi dafay neex bu joueur yi taxawoon croiser les match bi par la force dooleem baam dafay neex maa leen ko wax match bi non dina ala doome ci anime boo xam ne di ngeen gis lu ngeen lu ngeen doomee léegi lu ngeen gëj a gis ci football muy ambiance spectacle intensité xeex fit ful ak fayda ak jom ci biir terrain bi maa leen wax loolu Barça Real bi ni mel non mais di ngeen gëjoon ngeen a dund bii nii te li ma ko li tax ma koy confirmer ni ma koy argumenter premièrement Real dafa début débuté saison bi du ma ne dafa débuté saison bi avec une avec euh, euh, mën naa nii yoon meilleur niveau mais ci niveau bu yamamaay la débuté saison bi nag nii lu yom jaroon a tegle ñëpp demoon nañ ba naan ah Real mi est-ce que dina baax ren nag galactique bii nii star yi mu dajale mais on part d'Ancelotti moom c'est un kàngam mais nag il faut muy jël ay responsabilités gis na ni bii moo baax ci moom bul xool Mbappé bul xool Vinicius bul xool Rodrigo bul xool Bellingham ci présence terrain bi xoolal résultat yi positif yi Real mën a am koo mën a sacrifier te xam ne ne Real dafa war a avancer loolu sacrifier ko. man loolu laa gëm te Ancelotti bu defee loolu saison ren bi Real mën na de devenir encore un monstre baawee c'est sûr c'est clair et net la preuve deuxième mi bi bi football ak kooku di Dortmund système bi mu changé style de jeu bi nga xam ne Real ñu nañ ko engagement bi détermination bi mais aussi seen placement yi ni ñu ko def raté euh, prouvé na ni deuxième mi bi li ñu teg noonu buñ ko continuer ci reste saison bi. mën na leen a jàppale si deuxième mi-temps bi rek ne woon naa ne defar na mën na defar saison Real ba faw mu ngi noonu bu doon équipe boo xam ne on a senti que ni retrouvé waat na confiance am ci deuxième mi bi mu am ak kookee di Dortmund Real doon football ci saison bi ngay gis na ni mu ngi gagné mais jeu bi du la satisfaire mais contre Dortmund deuxième mi-temps bi non mais on a retrouvé le vrai visage de Real Madrid te fi mu ko amee foofu neex avant classico bi tout juste. Barça nag ñëpp xam nañ dépp début saison bi ay performance yi am solo lay def day football gagné teg la ay victoire Real li gën a neex ci mbir yi mooy Real dafa yeewu actuellement tombeeg Barça nekk ci lancé bu baax benn ñaari mauvais performance la def muy contre Monaco ci Ligue des Champions boobu dafa encaissé rouge ak contre Osasuna coach yi ba mu tourné bi kon foofu dinga nga am ay excuse mu ngi noone ci noonee nag ñu dem ba benn moment ma ne leen Bayern Munich mii di football ak Barça Barça peut bel la gagné. ne gis naa lancé bi baax saa nekk ak coach bu bees bi ñu yore ak seen style de jeu. retrouver seen identité muy tikki takk am njaay joxul jóob bi nga xam ne léegi ils l'ont maîtrisé dafa doon loo xam ne si ADN seen ADN la seen seen seen seen mbir la bu ñu demee ba euh, di ko confirmer ci biir terrain bi am ci réussite kuñ tee yomb ma ne nag mën na gagné Bayern Munich ma ne nag comme gagné nag Bayern bi mën na ko gagné mais aussi Barça bu gagné Bayern Munich fa lay jàppee ne Barça defaru na ba faw te amul ku mënta gagné ci saison ren bi bu ko Bayern Munich gagné nag ma xam ne ne mu ngi ci difficulté yu nekk ba léegi waaw bu mu nuyulee nag ma xam ne mu ngi ci yoon bi ma ne nag baax Barça mën na koo gagné te effectivement gagné na ko te jàpp naa ni baax Barça defaruwaat na te defaruwaat boobee moo ci neex bu ko defee mën a jàkkaarloog Real excuse dootul amati ñu dóor Real dóor ko wala soit euh, Real dóor ko ñu naan ah ma manqué ay joueur dama nekk ci ay difficulté non non non non wala soit Real actuellement ni retrouvé waat na formam deuxième mi-temps loolu laa jàpp. que ni malgré ils sont pas au complet nag euh, Courtois blessé na Rodrigo blessé na mais de liñ football ci deuxième mi-temps boobee ma jàpp naa bi ñu ko indee contre Barça match bi excuse dootul amati day metti day neex yëngu tegu ci temps vraiment te ku ne ci ñoom ñaar mën na gagner moroomam comme avec score comme score bu petite sans dépend ci ni ñuy débuter match bi ci début match bi mooy définir finition match bi. mu doon match boo xam ne du bokk ak Real ñam daan footballal comme kay jiitu nga ma teewut dama lay gañe waaw à tout moment Barça mën na ko jiitu sécurité score bi gañe ko Real tamit mën na jiitu Barça sécurité score bi gañe ko mu ngi noonu mu doon match boo xam ne nii man jàpp naa ni match bu ñu football ci intensité la nar a doon ci rigueur mais football dina am teg bal dina am mais aussi intelligence moindre erreur ci ñaari équipe yi ku koy def sa morom da koy exploité. te doo koy concrétiser loolu c'est clair et net nag bu dee ci côté Real ak Vinicius ba il est très efficace en ce moment li nekkoon defam ay jamono ji mooy qualité léegi finision bi da koy defar da ko da finition bi léegi c'est extraordinaire excellent fu mu jàkkaarloo góol dafay dugal day créer ses propres occasions et le concrétise bu dee ci côté baax Barça Rafinha leader capitaine. moom yamul ci paas yi muy def ni muy contribuer ci jeu sax mais dafay dugal ay triple te ay but yu essentiel lay dugal te même Lewandowski aussi mu ngi dugal Lamine Yamal tarfatin ay na ci espace boo ko may mu exploité ko côté Real aussi kookee di euh, mën naa ni euh, Rodrigo malheureusement il s'est blessé mais Vinicius à lui seul il peut gagner un match loolu moom yàgg na koo confirmer Bellingham su gënee avancé moom it à lui seul il peut gagner un xaw ma nag dafay reculer waat. mu ngi noonu ou pas mais en tout cas match la boo xam ne nii tarfatin ay ni ci erreur ku ko may sa morom sa morom da koy exploiter te da koy concrétiser gagner sa match mu ngi noonu match la boo xam ne warul am erreur mën ngeen di jël ay risques mais erreur yu bëri yi warul war cee ñàkk war na cee ñàkk ah, waaw ci côté sa côté Real na gis naa ne défense su Barça parfois nga gis fa erreur yoo xam ne nii Balde la fait souvent. ay erreur ay ay ay ay ay perte de bal yu bizarre yoo xam ne nii man jàpp jàpp naa ni yooyu noonu moom Vinicius as tuut bu ko ci amee moom mooy yàqu nga yow Barça Balde gis naa démb match yi mu jot football ak match yi passé il fait il fait ses matchs macha allah avec euh, intensité avec rigueur mais parfois dafay mamb téye bal bi lu yàgg ci ay tànkam ba perte ko wala soit mu def course boo xam ne li muy pousse ci bal dafay bëri il faut que muy ajuster léppam lépp teg ko ci axe. bu dee ci côté Real Militao mooy problème mu Real en ce moment ci defence bi baawe c'est sûr te Lewandowski actuellement il tue il lépp lay rey Rafinha aussi lépp lay rey Tarfatine ay ni ci espace erreur boo ko may dañ ko exploité Lamine Yamal waxaale wu ma ko bu dee ci côté Barça aussi seen gardien bii bi aussi ba tey dalagul sama xel carrément 100 pour cent mu ngi noonu contre Bayern nag géré na peut-être mën na gérer contre Real mais loolu tamit ci ay problème bu Barça ci la bokk mu ngi noonu atu Barça mooy seen attaque bi. ak milieu terrain bi Real Madrid aussi Vinicius mooy seen lépp actuellement moo leen géré ci ndodd li milieu terrain bi yaa Valverde il gère tout yaa Camavinga bu ñëwaat teguwaat ci temps kon ñoom ñaar mën naa ni bokk nañ ato bokk nañ tamit mën naa ni ay defo ci côté euh, Real Madrid on peut dire Militao côté Barça gardien bi bi dalul xel mu ngi noonu te loolu yëpp ku ne sa morom bu ko exploité mën na am résultat bu baax ci classico bi gagné ko mu ngi noonu gars yi ma leen xaar ci commentaire yi nan ngeen gisee match boobu ak kan ngeen jàpp ne mooy gagné ngeen bindal ma ko képp koo xam ne nag abonné goo sama chaîne YouTube bu ko bësal bu doon s'abonné bi ngay liker di commenter di partager loolu ngeen ñu mën a soutenir bu baax a baax a baax jàmm ci yéen gars yi ba beneen yoon ci yeneen vidéo merci à